lu si jot a rotal dellu di la sant bu baax ci sa mbaax ndax lii baax rek ndax gis naa ne ñi la entouré képp ku xewle dina ñëw touche bu mu mënti doon da leen may nga leen liberté ñu dem euh, dem guy ji te loolu c'est tellement important parce que loolu mooy fédération bi ngay def loolu dafay prouver yow bëgg nga ñëpp nekk benn parce su la neexoon am na si ñoo xam ni xam nga politique dafa xaw a sensible am na ñoo xam sa nit bu demee ci wuy ji kenn ci ci beneen te bokk leen kan rek dafay indi gis naa ni sa entourage yëpp libéré nga leen xam nga ni gëm nañ la nga libéré la loolu baax rek moo ko moo moo ko moo ko gund euh, Ibou Diouf wax na ko léegi euh, amoo xarma yàlla ak kenn <laughs> amul xaar ma yàlla ak kenn parce que lii wane na parce que képp kuy doomu Thiès Sénégal sax yaa ñëw bu yow ministre fii Thiès ku nekk am na fi ku fi wàññeeku li mais taxawale bi ci nit ñi am mhm. wax dëgg yàlla ñëw moo fi demee gis naa ko dégg naa mhm. loolu baax rek moo ko mën a fekk mhm. nag suñu fierté nga fii Thiès parce jigéen nga yàlla def la ndomba tànk yi nga am fii Thiès mosu fi am ci jigéen Thiès donc loolu fierté ak lu mu mënti doon bu ñu àndul ak bu ñu àndee c'est une waa waaw docteur nag mu doon ku la mës a naw du jëmmam ci mu toog fii mu tax may wax yàgg naa wax lu baax ci yow parce que da ci kontaan parce que moom Thiès rek a ko ñor ak foo mënti nekk moom Thiès rek moo ko lépp lu mu am def na ko ci doomu àddama muy waa Thiès lu mu am rek da koy partagé loolu loolu la ko yàlla séddee mu nangu ko ndax day faral di wax naa naan su ma naree am nar bokkuma ma ko nii yàlla ma ko yàlla xaj ndax tey jii su ko neexoon munoon na jël la lii mu am def ko ci boppam wala yamale ko ci njabootam mais mi ngi ci askan wi mu ngi ci famille am mi ngi fépp dañ koy ñaanal yàlla jàppale ko. Hmm. nekk ku fan ak wér. lépp lu mu bëgg yàlla defal yow fii nga teg sa tànk du ko teg macha allah euh, sax ci dàq xam naa nit ku nekk noonu nga mel juddu la loolu ci juddu la xalifa mii nag suñu wëllële la suñu lépp moom moo ñu boole mais dañoo dem ba finalement dañoo am yeneen lien yoo xam ne daf ñu daf ñu daf ñu lii. yàlla. ñu ngi la ciy sant bu baax Ibou Diouf sama frère la Ibou Ibou suñu frère la donc lu musul am yàlla booleel nañu ci booleem bu rafet boo xam ni ñu bokkoon malgré que bokkuñu ko am mais mu am courage am honnêteté taxaw devant tout le monde wax ni ñun kat lii ak c'est c'est bi évident mu wax loolu. taxaw daan ah yéen kat yéen ma gagné fii nangam ak nangam. nit ku dëggu la daal su ci ci ay cadeau maanaam am na franc parler il dit ce qu'il pense lu mu lu mu da koy war bu ci paree pare ko donc yal na yàlla dëgëral seen ànd euh, de rafetal musal ñu ci cat ak seytaane yal na fi dëgg donc ngi lay sant bu baax di la bu baax jërëjëf yëg naa nee na yëg na ni ni nga ma jàppee te tooguñu ni ko jàppee te attribut bi ngay teg ci man. ñu ne attribut bi ngay teg ci moom. dafa fekk sax ci yow la nekk. dafa fekk loolu ci yow la nekk. Ah, nit ñu ne nit. nu mu la jàppee. ñu nu mu la jàppee rek. ñu soo dee gor nag nga war koo jàppee lu ko ëpp. ñu ne bi njëkkee wax. ñu bi ngeen njëkkee wax. ak euh, yow la. ñu ak man mii la woon. Euh, ba tey may dégg nag euh, yu bare. nee na ba tey muy dégg yu bari ne nit nag moom nit rek lay mën a nekk ne nit mënula wax ni la dama laa fonk dama laa apprécier ngay rester indifférent. ngay rester indifférent. loolu mooy ñu ne loolu day dafay bokk ci baadoolo. parce que da ngay foog ni. ne da ngay foog ni. yow dong yaa ko yeyoo. yow dong yaa ko yeyoo. fekk na fekk na. ki lay jox loolu. ñu ne ka jox loolu. gënuloo gënuloo ko. waaye dafa am grandeur boo xam ne. waaye dafa am grandeur boo xam ne. nangul na la li nga nekk. nangul na la li nga ne. ay grandeur grandeur fay. waaye grandeur nag grandeur moo koy fay. war nga xamal ne moom la koy wax. nee na xawar ngaa xam ne moom mi la koy wax. moom am lu toll ni li nga am. moom it am na lu toll ni li nga am. wala lu wala lu wala lu këpp lool. Euh, Baye laay wax na ni mu demee ci kër gi. nee laay wax na ni mu demee ci kër gi. moom moom du fi goro doom la ci kër gi. yàlla def. ñu yàlla def. Ibou Diouf ñu ne Ibou Diouf mii. ku ne xam na ni mu demee ak man. na ni mu demee madame la ministre. rawatina eh, kii rakk Brisette bi. nga xam ne Fatou Diop muy rakk Brisette. Fatou Diop Fatou kër gi la bokk. ñu ne Brisette doom la ci kër gi. bu Brisette bokkee nekk doom ci kër gi. ñu ne Brisette nekkee doom ci kër gi. Fatou Diop nekk doom ci kër gi. Fatou nag doom la ci kër gi. Virginie Virginie li mu wax. dafa généreuse rek. dafa généreuse rek. ñi nga ànd ak ñëpp Lamine nag. na Virgile nag yow li nga wax waaye lamin moom. Lamine Lamine. moo tax la moo dee petit. moo tax àdduna fi dafa tuuti. ba mu xamee du tey. ba mu xamee Lamine du tey. te nii ngeen wax ne moom la mel Baye laay wax ko. lii wax Baye laay wax Lamine noonu la mel. noonu laa ko xamee. yéen nii rek la xamee Lamine. mosuma gis ci moom changement. ñu ne mosul gis mu soppiku. léeg nga gis sax yenn ci seen kii ñoo xam ne danañ mel neneen. danañ gis keneen ci yenn gars yi danañ mel neneen. waaye moom waaye Lamine moom. ñu ne dafa resté ni mu mel rek. ñu ne qui se ressemble. ñu ne qui se ressemble. ça semble. affinité c'est pas pour rien que ñu koy wax. nee na affinité moom du dara bu ñu koy wax. ñu bokkul yëf. ñu bokkul yëf. mënuñoo ànd. mënuñoo ànd de. ngeen amul affinité. bu ngeen amul affinité. am lu ngeen bokk gëm. am lu ngeen bokk gëm. bu ngeen àndee seen ànd du yàgg. bu ngeen àndee seen ànd du dem. yow nag ku baax. nee na yow docteur da ngaa baax. est-ce que démb. nee na démb. loolu mooy Sénégal. loolu mooy Sénégal. ndax euh, ñoom Yacoub bi ñëw nañu avec une forte délégation nee na Yacoub ba Sow ñëpp ñëw nañ def délégation bu mag. ma dafa am loo xam ne ci bu ñu ko ñàkk moom mooy leen dafa am loo xam ne Sénégal bu ñu ko ñàkk. mooy la muy solidarité bi am ci suñu réew. noonu lépp noonu. waaw parce que ku mu dal sa kër rek. sa kër muy faatu. da ngay gis rek. gis ni. kenn yéenewul ko. kenn yéenewul ku toogoon tam téléphoné. nee na ku toogoon tam téléphoné bi nee na boo toogoon wootee. day doy dafay doy sëkk. waaye nga ne déedéet. waaye nga ni déedéet. dinaa dem fekki sama sœur. wan ko ni. maa ngi moom bokk yëf yi. maa ngi ñoo bokk naqar wi. daanaka ne quelques la wala une heure de temps dinaa noonu donte une heure de temps la wala une minute dinaa ñëw defal ko. ñu bokk naqar bi. ñu bokk naqar bi. Ah, na loolu. ku mu doy lan moo lay doy. ngay xam ne nag. ne ngay xam ni. ci man la. lii nga def rëy ci moom de. mais aussi li ma waxoon ci njëlbeen. ne la mu waxoon ci njëlbeen. ma bettaat. ne moom du ko bettaat ci yow. parce que écho ne na li muy déglu lépp. yow social rek ngay yow ci social rek ngay dund. <laughs> waaw kon nag kon kon sa ci sa trajectoire la bokk. nee dafa bokk sa yoon. muy lu am solo. lu am solo ci société bi. mooy fi am démb. mooy li fi am démb. ak bërki démb. nga xool notre société loolu image bu dàq suñu société la nee na nga xool société bi gis loolu xam ne moo dàq ci société bi waaye lii moom mi ngi fi. waaye nee na lii de mi ngi fi muy teraanga ji. kon ko gën a jàpp. kon nañu ko gën a jàpp. ñi ko xam nañ ko jàpp. ñi ko xam nañu ko jàpp. ñi xamul daañu roy ci ñi ko xam. ñi ko xam ñu roy ñi ko xamul. kon daal gërëm sant la. nee na gërëm na la sant na la. di la jaarewaat waajur bi. parce ñoo ko bokk nee na yéen a bokk waajur wi mi ngi la koy jaarewaat. waaw di la tàllal loxo. nee na ngi lay tàllal loxo. parce que tam euh, noonu la. na àdduna nii la. nekk fa nga nekk. ku ne man ngaa nekk fa nga nekk. Ibou ngi lay tooñ. neen mi ngi lay sànni xeer. mi ngi la ba tey suñ société mel noonu. waaye loolu ba tey àdduna bi moo demee noonu. moo mel ah. li am solo rek. mais li am solo. mooy li am nii. li am nii. li am li am nii. am fi démb. am fi démb. am fi ba déegi amee. am fi ba déegi amee. da ngay dem ba sax. ne dangay dem ba sax. jaaxle ne jaaxle. ki fi jóge ci ki fi jóge waaye ci ñun ñi fi des. waaye ci ñun ñi fi des. waaye da lay réconforté. waaye daf lay ja da dimbali. gën la motiver ci la nga daan def. gën laa motiver ci la nga daan def. ndax loo daan def da a yokk. ndax loo daan def rek koy yokk. waaw Sénégal yi baax nañ. nee na ñu baax lañu de. ñu baax euh, ñu mën a euh, dimbali seen mbokk. nee na ñu mën a dimbali seen mbokk lañu. mën a ñu mën a jàppale nit lañu. ñàpp nit. ça n'a pas dans les amul ci yeneen pays. daw am koo da ngay daw pour am koo waxal. voilà di forcer porte. ne di forcer porte. am écoute. pour am di ku lay dégg. am nañ loolu. mais ñun am nañu loolu jàppalante. am nañu dimbalante am nañu. solidarité nee nañu am na dimbalante am nañu solidarité am nañu yërëmante. am na ñu mel ni yow. ñamee ko mel ni yow. xam ne dañuy ràññeeku ci côté boobu. nga xam dañuy ràññeeku ci ndimbalante. ñu mën lu remercier leen. ñu mën leen di sant la gërëm la encouragé la yaa ñi nga ànd. di la wax ne noonu la. la wax nii rek la. di bu baax. nee na di la gërëm bu baax. di gërëm ñi nga àndal ñëpp. di gërëm ñi nga ñëpp. di gërëm fi toog. di gërëm ñi fi toog. salaamaaleykum wa